curkindaay yi jël ma ay waay jël ma ñun maire curkindaay waa Fass sama yaakaaroon sax yéen a dugg ci koñ bi. du yéen. ah kon nay leer. maa ngi sant yàlla. bu taxawee xaar dinañ ko daan daan bu ndaw. bu réewoon doon dinañ ko duma daan ko. bu taxawee ko ñu daan ko daan bu ndànk bu dawee ñu yenu ko ba sa kaw teg ko si suuf toog si biir bi. nag toog rek xaar. ñu def ndànk-ndànk tempo tempo moog Siteu waaw mu daw kon nag na dal te bu mu yàq na def tànk tànk rek te xam ne tarkindaa yaa ngi ñëw te Tafa Sow rek na fexe ba bu mu jooy bu mu jooy bu mu daw bu mu xof waaw na doon tarkin na xam ne rek tarkindaa yi la ko digaal ne yëkkati ba ca kaw ñaf suuf taan ko ba wàngarti ko toog ci kawam bu ko daane sax ndax ne ma ñetti kurpeñ ba mam seede ba du ko miim moom dafa jub ñun dañ koy fete ba mu set ah weer ko gome ko paase ko ñun duñ mën a moom waa parcelle moom la waa jàmm gën soxla yaayam yi ñu ñëw papa duma leen daan leen ñu duma ay yaayam daan leen Siteu nag na tey bàyyi xelam ci li muy def dóor Papa Sow ñib si ndax poti liibar la waaw matul li poti liibar xamoo poti liibar papa Sow poti la ci kanamu épicerie poti liibar la xamoo poti liibar la gis nga ko ah, cam ñun suñu américaine bi gisuloo ko poti liibar mu ko kak lu fi waay wax mu weesaare ko kon nag weesaare way nee leen wesaare lu fi waay def mu waare ko nee leen wesaare yal nañu wesaare Papa Sow